Euh, lu may wax euh, ci budget ministère de l'intérieur bi mooy ni euh, boo xam ne soo xoolee le document sur les risques budgétaires organisation élection présidentielle 2024 yi dañ ko jël en tout cas comme un risque budgétaire parce que am na risque d'instabilité donc ñu yor seen organisation bi ñoom itam dañu vraiment ñu responsable nañ mais déjà gis nañ ni y a une crise préélectorale une crise préélectorale on l'a vu à l'occasion du parrainage notamment le retrait des fiches de collecte de parrainage du candidat Ousmane Sonko ñu gis ni l'administration a fait du banditisme l'administration a commis des forfaitures l'administration a commis donc moo tax en tant que militant de la l'APR vous êtes disqualifié pour organiser une élection transparente inclusive, démocratique. Il comme lu Ablaye Wade dafoon en deux mille 2012 comme lu Abdou Diouf dafoon en deux mille en nommant des personnalités neutres et indépendantes pour organiser les élections parce que ak nu mu munti alternance day am le peuple vous a vomi vous êtes devenu le régime le plus impopulaire depuis 1960 depuis l'indépendance donc xam ngeen ni jeexal ngeen pare ngeen donc lu ci des mooy comment organiser cette alternance comment organiser une et de gouvernance mais en matière de gouvernance électorale on lui dit ne faites pas moins que Wade ne faites pas moins que Abdou Diouf su fekkee ni dafa bëgg a bilan bu baax mais lan ngeen ragal huit cent mille sept cent mille parrainage loo leen ragal nommé leen un ministre chargé des élections bu ne tëddee njaaxal naay avec une administration électorale ñu dem élection ñu xool su fekkee am ngeen fit mais da ngeen mës a ragal compétition da ngeen mës a ragal contradiction leneen lu ma bëgg a wax Sénat commission électorale nationale autonome génne leen fa seen militants yi notamment Cheikh Awa Balla Fall ak Pape Amadou Ndiaye nga xam ne ay militants APR la ñeen dugal leen commission électorale nationale autonome loolu kenn du ko nangu déjà opposition bi déposé na recours te laaj yu ñu report des élections laaj ñu ko tey laaj ñu ko ëllëg tappale ak caaxaan naan report des élections bëgguñu ko parce que xam ngeen ni da ngeen di gën pare ngeen leneen lu ma mën a wax mooy dégg naa ni ngeen di naan euh, interdiction de manifester fan ngeen ko teg systématique yu jóge ci opposition yi soo leen di ñuy jox statistique da ngeen di ñu jox statistique yu leer mooy demande opposition yi yu ñu leen jox ñaata ngeen ci accordé loolay statistique mais ngeen jël ay jàng ay mariage ay sabar ngeen dugal ko ci statistique yi ngay naan ay 1 pour cent 2 pour cent kan ngeen di mais quand même soyons sérieux on est dans un pays organisé loolu leen bëgg beneen bi les 60 morts depuis les manifestations de mars 2021 monsieur le ministre yow yaa promettoon une commission d'enquête indépendante yaa ko taxaw wax ko foo leen ci tool nervi yi nga xam ne ñoo ngi jógee permanence su APR waa APR mu noo leen équipé jox leen ay armes de guerre ñuy accompagner police dañu ñu bëgg ngeen leeral ko je vous remercie. je vous remercie Cheikh Seck vous avez la parole pour euh, cinq minutes. merci beaucoup monsieur le président ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay monsieur le ministre de l'intérieur ñu ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre Mamadou Saliou Sow de la sécurité di nuyu monsieur le ministre des finances et du budget di nuyu le ministre du travail le directeur général du budget me permettrait de saluer le secrétaire général monsieur Alioune Aïdara Niang de rendre, transmettre mes condoléances au directeur général des élections, Tchendela, saluer le directeur général de la police, monsieur Bokari Yag, et le général Morsec des sapeurs-pompiers. Monsieur le ministre, vous arrivez à votre quatrième station de ministre de souveraineté. Vous avez déjà fait le ministère des Forces armées, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères. Machallah, vous êtes aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Cela témoigne de la qualité de l'homme que vous êtes. Et cet honneur consacre en vous le mérite, la compétence, le sens élevé de l'intérêt général d'un homme de valeur. Monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu bu baax di la soutenir di wax également ñaanal la nga am succès ci li nga nekk Et cela ne nous surprendrait pas, parce que quand vous receviez la médaille, la plus haute décoration française, la, la, la médaille de commandeur de la Légion d'honneur de France, le président François Hollande disait à l'Élysée, depuis 2013, vous êtes le ministre de la Justice du Sénégal. Vous y montrez que gouverner, ce n'est pas abdiquer ses principes, c'est les frotter à l'épreuve de la réalité. au Sénégal dans les institutions de coopération africaine comme à la CPI, dont vous présidez aujourd'hui l'Assemblée parlementaire des États partis, vous continuez à défendre au directeur de... Et nous vous battrons. Merci beaucoup. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Ministre, elle fait encourir aux États des risques extrêmement importants et sont ici. Si des élections pouvaient être tripatriées, waa koñ bi xam ngeen ne du ngeen fi ñëw et pourtant vous êtes la avec Aïb donc je pense que quand même même ceux qui sont de l'opposition mais qui sont des démocrates des non-inscrits mais qui sont des démocrates et je voudrais citer Marie Tudien qui m'a chargé de vous dire qu'il remercie le département ministériel parce que à Kermassar pour cette caserne, mais aussi le renforcement de la sécurité à Kermassar. Cela veut dire quoi Cela veut dire que, monsieur le ministre, vous êtes en train, avec vos hommes, vos collaborateurs, de faire un travail extraordinaire de ce département. Certains l'ont dit tout à l'heure, Sénégal, Ami Ndiaye léegi wax na ko boo ko laalee boo ko laalee mu ci namm naa la xam nga kooku dangaram wàññeeku na c'est pourquoi nous faisons tout pour leur faire comprendre te xam nañ ko nag sax ne réew mi jàmm rek ñu jig vos collaborateurs nous suivent mais xam nga ne fii jàmm rek fi am parce que réew mi dafa a dal parce que ñii nag nekk à la dans le gouvernement non ku ne xam ne du ñu ay ragal ku ne xam ne du ñu dellu ginnaaw waaye ku leen wokk ñu xuri la donc il faudrait qu'on continue dans ce calme di waxtaan ci njekk comme saa bu fekkee ne am na loo xam ci njekk rek su fekkee ne am na loo xamante ne nii mën nañ koo waxtaanee et on de sorte ci njekk ñu dem élection gagné leen ci njekk comme saa ñu dem seeti leneen loo xamante ni war nañ koo mën a liggéey pour que Sénégal jëm kanam maa ngi leen sant di leen gërëm wasalaam. Merci, La liste des orateurs est épuisée. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez la parole.